ñu jàppale suñuy yaay te réew mi dëgër na trop wax dëgg yàlla da ngay bëgg liggéey sax doo am liggéey te loolu dafa métti kon nag moo tax nag ñun li moo tax ñu topp ko mais du dara loolu kese moo tax ñu topp ko di ko ñaan nag réew mi yàlla na ko yàlla jox mu teg lépp si yoon si barki alxuraanu karim ñëpp nekk si jàmm suñ njaboot bu ñëwee ni mën a nekk si jàmm incha allah waaw jërëjëf. jërëjëf koor gaa ngi soog a neex. nga soog na xol yaa ngi a na. koor gaa ngi soog a neex nda Sonko ñibbisi na waaye koor gaa ngi soog a neex nda Sonko ñibbisi na xol yaa ngi féex waay nda Sonko ñibbisi na xol yaa ngi neex a neex nda Sonko lan ngeen yëg lan ngeen yëg jamono ji billaay waay kontaan kontaan kontaan nen suñu xol sedd na kontaan nen billaay dañoo kontaan mbégte rek mbég mbégte man de man man de ba ma ko déggee démb démb ba ma ko déggee damaa dog dal di wàcc sama place karaj tëj dal di daal di ñaali fii la fanaan bu set kër Sonko laa fanaan bañ allah ko fajar yu jude yu daal di jël jël kii bi pôle mbalit bi rot rota foofu noonu bale ko mu set ili kuru kaara go noonu daa salte woon yi bale lépp dégage lépp. dal dal dal dal di samp xar xar Sonko. lan ngeen di tontu ñi naan sénégalais xëy na duñ campagne ci weeru koor ak juróomi. loolu loolu loolu ay wax la ay caaxaan la. bëri bëri bëri bëri bëri loolu ah. ñooñu ñu bañ a bëree ñooñu moom bañ a bëree bëree bëgg a bëree bëree. waa cour suprême waa cour suprême nañ xool li ñu wax bu baax. force wala PDS dugal foofu bay nañ xool li ñu wax bu baax a baax. waaw loolu lan may bu sax waaw jar wax lu mu ne lu mu ne jar wax. maa ngi leen di siyaare. gannaaw borom dëkk bi moo ñëw Sénégal démb ñëpp xam nañu kan moom Sénégal gudal jël nag jaru ko quoi man sañoon xam nañuy def jël lenge yëpp jébbal ko ko quoi balaa moo gën a ñaaw saa bu ñu demee élection dina ñaaw de barki yàlla lu musul am histoire Sénégal dina am billaay walaay yow eh candidat yi lañ candidat yi lañ gara mais candidat yi lañ dix-neuf ah, mais mi mel ne instant benn candidat moo si dëkk bi barki alxuraanu karim instant nii yow kan mooy campagne voilà mais cour suprême de cour suprême recours bi recours bi daanu na. Euh, cour suprême recours bi daanu na kon élection présidentielle yi danañu ko amal niki 24 mars parce que dafa dafa déclaré dafa dafa déclaré irrecevable li nga xam ni moom requête euh, la cour suprême. bañ bëre bëre le 24 premier tour le 24. may ma may leen ma ma jàllale ma jàllale info bi rek parce que euh, <laughs> Libaas. Libasse Cour suprême kon dafa daal di euh, la Cour suprême déclare irrecevable la requête euh, des spoliés car le conseil. ngir yàlla nañu génneel Sonko nag dañ koo namm mais nañu génneel Sonko ñu gis ko démb tey gisuñu ko mais dañoo namm Sonko voilà waaw mais anamu anamu anamu Sonko anamu fu mu ne. waaw voilà voilà voilà. mais dama une minute rek ma jàllale info bi ah voilà mi ngi euh, la Cour. la may la ma une minute euh, la cour suprême déclare euh, déclare irrecevable li nga xam ne moom moo di la requête des spoliés car le conseil constitutionnel le régulateur noonu la ko daal di xam ne kon élection présidentielle dina di am euh, ni ki dimanche 24 mars kon ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa PDS ak les spoliés dañu leen a daal di jël seen li nga xam ne moo di requête sànni ko ca poubelle ba kon loolu moom mooy décision bi nga xam ni cour suprême jël na ko. Ah! cour suprême ñooñu démb dama tëdd feebar wóoruma te tey maa damaa wóor. démb ba ma dégg ne Sonko day génn yaa nga xam ne sama feebar comme mbubb ma simi laa wax nii te démb woor ma tey maa ngi nii damaa woor su ma bëggee maa ngi kër Sonko bàkki Seydina Muhammad te démb damaa tëdd feebar wooru ma si xëy bëgg ngoon ba ma yëgee ne Sonko day génn si waay yeew dafa mel ni sama feebar mbubb ma soxal simi ko laa wax nii boo xëy maa ngi nii tur bi nekk tiyaaba tur bi nekk tiyaaba la moo di nekk tene naa tey maa ngi nii damaa woor da nga koy jël nga gàllam ni ko nga def si ndox bàkki Seydina Muhammad Sonko rek boo xam naa sa ay ray fay Sonko ma mel noonu xare badar weeru koor woon li ma fi nekk nii nii yëpp yëpp yëpp wallaahi xoolal dafa mel ni waruma ça veut dire ñun pro lañ gëm ñun Sonko ñun moom lañ ñun moom moo ñuy tere nelaw war na yàlla moom lañ gëm te moom lañ fas yéene fal fal 2024 incha allah billahi wallahi taala kontaan nañ de billahi ñu nag Sonko rek ba faw war na yàlla man 5 heures du matin laa tëdd démb 5 heures du matin laa tëdd démb yaa ngi dégg tey fajar ma dégg ni Ousmane Sonko mu ngi gërëm ma demoon si kër góor gi moo ma ko jaralaat suba sax bu ko ma defaat ko barki alxuraanu karim te du ma ndogu du ma naan ndox sonko jaral na ma man garaawul koor gi nice kon kon mi ngi noonu ah Libaas ñu doxantu ni tuuti la liste des 19 candidats est maintenue le moment parce que euh, li nga xam ni moom mooy euh, décision bi kon daal di nay wàcc foofu la ca Cour de Dakar euh, mi ngi noonu Cour suprême daal di nay déclaré irrecevable li nga xam ni moom moo di requête bi nga xam ni ñoom la waa PDS defoon ak ñi nga xam ni ñoom ñoo di les candidats di spoliés noonee kon la fa daal di amee pour ñi nga xam ni ñu ngi bàyyi xel la jamono jii nii ñu continuer Libaas ak li nga xam ni moom moo di réaction yi Euh, parce que instant bi nii euh, tey pâturiers yi ñëw nañu euh, fi mu ne nii fees fi dell salaamaaleykum. incha allah xam nga lu toog kontaan dama toog démb 16 Pastef teewoon teg saw fi ñu toog di defar suñu bagage di ñu daal di woo ñu ne Poro libre na ñu daal di taal seen moto ñuy taal seen woto oto ñëpp jubal kër cité kër góor gi ñu tasee biñ fi jóge démb ci guddi ñibbiwaat suñu kër yow fajar sangu ba set dellusiwaat fii tey parce que booy sonn ci dara fekk nga gëm ko yàlla dalay jàppale doole boo mun dëgg waaye dëgg rek mooy mujj parce que jaay doole bu ne jaay nañ ñu ko sonnal nañ ñu xokkutal nañ ñu tëj nañ suñuy doom tëj suñuy fereer tëj suñuy jëkkër door ñu ay grenade lacrymogène ñu sonn daw ñuy daw guddi daw bëccëg saa bu ñu xëy wut ñu ñu yóbbul njaboot gi fee ci 100 waaye yàlla suñu borom subhanahu wa taala def na ci xewal ba tey li ñu doon sonn suñu borom woon nañu du niil parce que kenn ku ne li nga doon dugal foofu alal ju leew saa sa ñàkk nga doon def ñuy def porte à porte di képp di def lépp pour débul dee tenus politiques yi mosuñu cee toog benn yoon man commune bi ma nekk Tivaouane Diacksao deux tenus politiques yi man maa nekkee euh, seen responsable bi ma fa nekkee ànd ak sama équipe ñuy daw di liggéey di ket di wut suñu dërëm suñu ñaar dërëm di def suñu doole nag xam nga Ousmane Sonko lu mu ñuy dig bis bu ko fii Sénégal suñuy sët ak suñuy sëttat dinañu njëriñu xeexuñu ndax suñu bopp dañuy xeex suñuy doom ak suñu sët ñu ngi koy ñaan nag bis bu ko yàlla dénkee rew mi na defar Afrique lañ koy ñaan. yaay booy Cour suprême at nañu sànq nee nañu élection yi dafay am niki 24 bi maintenir nañu ko ndax. incha allahu rabi moom la waa PDS defoon ah, kon élection yi day waaw man déglu ma wax cour suprême sax parce que man man pro laay déglu man pro laay déglu du ma dugg déglu cour suprême pro bu ñu nee fa la ñu def suñu nee bàyyi la ñu bàyyi bi ma yeewoo fii laa ba xaaju guddi ñu doog a ñibbi bi ma yeggee sangu yeewoo fajar ñëw di déglu pro li mu wax rek loolu la ñu wax te incha allahu rabbi suñu xeddee ñun ak suñuy ñaboot dañuy gën a maas am na ñu desaat si kaso bi ba léegi waaw ñii des ci kaso bi incha allah rabbi ñëpp dinañ leen libéré ñu ñëw. Abdou Salam Dème dëkk ñaari tali mu ngi kaso ba léegi mu ngi ci kaso ba léegi incha allah rabbi. waaw Bilal Diatta sama càmmiñ la kooku ñoo doon bokk dem ci doomu Mariama Sagna yi di leen yóbbul ay rafet ma chaque walla sag eh, ouverture école dañ doon ànd maa ak Bilal Diatta bi nag kon département Pikine yëpp maa ngi leen di nuyu nag di leen sargal ndax Pikine liñ fa ci moo bëri Pikine li fa tuur ci deret moo bëri Pikine li fa sànku ci jeune moo bëri suñu doom bi mujjee faatu barki Demba Ndiaye Colobane ñu dóor ko ba reer wallaay lazim noonu la ñu naqare ndax damaa xëy gisee ak moom ci suba gi yàggul ñu ne faat nañ ko ñu am lu ñu métti trop nag ñu ngi ñaan yàlla Ousmane Sonko ñu ngi lay dénk suñu njaboot gi ndax nuñ màgget nañ ba pare troisième âge lañ toll waaye nanga nga defar réew mi ànd ko xale yi gën liggéey ko gën defar Afrique gën soppi dëkk bi loolu la ñuy xaar ci yow. xaaruñu poste mu ngi noonu merci beaucoup ah. président Diomaye moom dugg na rëbës xam na luy rëbës yaa may dégg. président Diomaye xam na nu gis nga rëbës man lu may lu may wax président Diomaye bis bu ko yàlla dénkee réew mi. ngir yàlla war a suuli rëbës na ko toj détourné yi fa nekkee ne leen génnee foofu parce que foofu du seen place gis nga rëbës bu gis nga bu tawee bu tawee néegi day seen néegi day seen gis nga boo feebaroon bay waaj dee sax benn comprimé la lay jox benn comprimé day waaj a dee sax barki alxuraan benn comprimé la lay jox te xoolal da ngay mën a yaru ñu yoobu la mu infirmerie noo yaru du la fa yóbbu te xoolal garde pénitentiaire di la si tegal ay bandi ngeen ay sàcc ngeen. manifestation da lay jàpp nangu sa alal mais man policier bu sàccoon sama téléphone dama xool bu baax maa ngi nii Salif Diawara bi nga jàppoon di ko torturer billahi bis bu ñu dajee jaan suuf tàng suuf sama portable di nga ma ko delloo si nii mbaa si naa xamee naa ko bu baax te di nga ma ko jox parce que liggéey woo leen sàcc rek ngeen fi nekkee sàcc rek ngeen fi nekkee li ngeen doon dóor yëpp maa ngi identifié par benn benn xam nga ñun sunu réew la ñuy xeexal. tey police da leen non fii ban yoon moo fi am. fii ban yoon moo fi am. bu toogee yoon dina defaru. xanaa président Diomaye bu toogee yoon am. mais man sama alal du ma ko ñàkk noonu wax dëgg yàlla. parce que yéen nit ki dale police boo ko jàppee bul dóor bul saaga mais police yi ñoo lay jàpp boobu rek dinañ xoolal lan moo tax ngeen bëgg Sonko mu ne la téléphoné ni yàlla ngeen laaj ko. parce que yàlla moo ko def suñu xol. mais fii jàpp Macky Sall mii lan moo tax muy defar boppam justice. xam nga Sénégal am na yéen wax yi dañ ko war a bàyyi Sénégal am na yéen wax yi dañ ko war a jël teg ko si suuf wax dëgg bu mu méttee bu mu méttee Macky Sall bu ñu ko jékkoon deux mille vingt et ko dafa ñaan ñu baal ko mais ba mu jeekoo is baal ne baaluñu déedéet da nga dem tëdd si ngor. mais wallaahi am nañu. on le signale cour suprême am na ay euh, militants PDS yu attaqué taskatu xibaar yi Walfadjri yi nekk foofu noonu bon euh, danañuy vérifier de toute façon mais ak lu ci manti am loolu su fekkee lu am la ñu ngi koy ñaaw lu baax a baax parce que tey taskatu xibaar dañu ñëw pour def li nga xam ni euh, moom moo di seen liggéey voilà. asalaamaaleykum maa ngi nuyu di leen sant ñun nag waa loolu laa jógee mais vraiment Sonko daf may jaral lu nekk jaral lu nekk mu nekk nii. mbay mi metti na torop ci waalo waalo mbay mi yëpp a taxaw xale yi di dem bi ñu dem Espagne waalo waalo mosul xam loolu ndax réew mu metti moom metti na torop sonkoon nag yàlla ko yàlla may wér defal ka jàmm bi dénk ko Sénégal yaakaar Sénégal ndaw yi ñoo ci gën a ab góor ak jigéen loolu rek laa ci doon sànni. mu ngi noonu. Euh, salaamaaleykum. salaam na ngeen def. ah ñun patriote yi. waaye nuyu ku si nekk sa tur sa sant. ndax mënu ma wax lépp ndax danañ olof Ndiaye dafa ne luy def nag bi xaj cin man sama mbokku patriote laay waxee surtout nag jeunes yi man si jeunes yi si jeunes yi laay gën a insisté saa ne jeunes yi ngir yàlla gënantu bi rek na yi focus bañu topp alal gars yi luñ jënd kaso duñ ko wax kenn tar na bépp yëpp dañ ko yàlla ndax dee mënoon na si am comme yàlla def ñu ñun deewuñu sant na yàlla te am na sax ñu moor mhm. am na sax ñu dee yaa ngi dégg mais comme tey jii saa waay dem na ba xam nga dem na ba man tur bi sax bon bu ma say jaar man dama la yaakaar nit warul dundoo loolu ak sa doomu aadama Ousmane Sonko moom wàcce wàcce nañu bu dëgg neexee wàcce nañu man damay kon gàcce ngalaam kon nag nañ focus yaa ngi dégg jéem jënd système bi la la ko may jëndee ku si nekk dem xam nga dem jël sa carte yaa ngi dégg même lu mu sori sori sori sori nga jëli ko dem. voté ji ndax loolooy dëgg ndax tey ji am na xam ne dañ leen xam nga dañ leen woo si perte lañ jox ay 5000 ak 10 000 xam nga ñun ñun duñ seen boobu te loolu day jeex ñun loolu la ñuy dindi essentiel li système bi fi nekk système bi fi nekk moom la ñuy dindi waaw képp kiy jeune nag damay waxaat képp kiy jeune surtout seen yaay yi sax laay wax surtout seen yaay yi laay wax nañ bàyyi xale yi voté ndax système bi fi nekk baaxul ndax ëllëg seen i doom dañu war a màgg ñun moom béy wee na mbuus ñun lu ñu xeex nii suñu doom moo tax ñuy xeex mais nekkatu ñun waaw ndax tey jii yaa ngi dégg suñu liggéey dañ kaa perte à la à cause de cause de Sonko ñi si xeex tu si topp topp ba tey jii kon tey jii yaa ngi dégg dëgg jaa nii mu ngi mel ni film yonent Moussa ak kii Firawna ndax film moo nekk ni histoire baa nekk ni boo xoolee même réalité la nit ki baa nga si yenn condition nga ko baalee nit ki xanaa boo koy baal da nga koy moo tax ma baal wala léeg-léeg même boo ñu génn ñi sax nee xool nit ñi kat lii moo tax ma génnal lii ak lii xam mais génn ñoo xam nga bay bàyyi ñu ci fala fala quoi mais daal li may mooy jeunes nañu focus na ñëpp na ñëpp booloo doon benn gis nga dañ def benn say boo xam ne yaa ngi dégg bu ñu xëyee huit heures balaa ñoo wax heure wala midi fekk ak bi jeex na affaire bi ñoo ko mën a jeexal de mais du nekk fi da ay wax ay tox see oto fii ay yuuxu fee ah ah na gars yi dem jëli carte bi denc daas fanaanal yaa ngi dégg Ousmane gàcce ngalaama joxe yi gàcce la ñu jël na ñoo si des wasalaam. d'accord mi ngi noonu euh, en attendant ñu euh, jéem a xool naka la ñuy jokkoo ak euh, ñenn ci suñu confrères yu nekk foofu la ca cour suprême de Dakar pour mën xam exactement lan moo xëy nekk di xew foofu noonu salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah ziar naa leen yéen ñëpp yéen waa diaspora waa Sénégal yéen ñëpp ziar naa leen.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 Macky Sall ni mu bàyyee Sonko waaye bu amee li nu gënal ñu bàyyil ñu sunu maire Mohamed Bilal Diatta waaw jërëjëf. Ah, mi ngi noonu ah, ba tey euh, les internautes kon ñu continuer ñu ngi euh, jéem a def le maximum quand même pour. c'est fini. on y va ñëwal ñu li nga xam ni moom moo di. depuis bu ma déggee sama président génn. munuma def dara munuma bu ma ndogwee ba pare munuma lekk munuma def dama doon déglu ba mu yàgg rek ñu won ma ci télé bi dama bég ba xamatuma fan laa nekk ngir kontaan dama kontaan instant yi ba xamatuma fa munuma taxaw sax man man man Maimouna Goudiaby laa tudd ñaagis laa dëkk foofu laay dem voté Ousmane Sonko. Ousmane Sonko nar a dem euh, Ziguinchor itam ngir euh, nemmeeku ñi nga xamante ñoom ñoo di patriote nan ngeen koy préparé foofu. ñu ngi koy préparé préparé boo xam ne. kenn xamul nu mu toll waaw moom ak Jomaay Basiru Jomaay Fay. élection yi le 24 la ndax waa Ñaagis pare ngeen pour. pare nañu fu mu ne nii waa Ñaagis moom rek la ñuy déglu Jomaay rek Ñaagis. xaaral xaaral euh, allo. xoola yaa yaa yaa ngi en direct yaa ngi en direct léegi dikkaatal ñu ci li nga xam ne moom moo xew foofu s'il te plaît. alors euh, dañoo commencé dañoo génne soo xamante ne moom moo di tout audience ñu commencé di leen moom bu ñuy expliqué ba man jëm ko ñoom ñëpp taxaw di commencé nag di yuuxu. man maa man suñu bopp man maa njëkk a yuuxu ma ne leen on n'entend pas ñu daanaka ci xamante ni Mamadou Diop waaw loolu lay wax. ñoom ci la ñu ci micro wax ci benn journaliste ñu ne waa Koungheul wàll bi yëpp dañ leen a korom. léegi nag ñëpp puus di ñëw nga agressé journaliste journaliste bu jigéen bi. ci la tax ma ne leen loolu du ñu am. ah kon ñoom ñëw nañu pour attaquer journaliste yu jigéen yi ne foofu bu jigéen bu ne foofu. ñu continué suñu interview dañu commencé waat benn buñ Cheikh d'accord mais journaliste fan la nekk Walf wala ah journaliste bu jigéen boobu fan nekk Walf ñun démb dañoo portable pour pour voter TV bu ñu def interview ci kanam ñu ñoom dañu traité journaliste Walf de saytaane wala euh, lu ñu leen doon traité noonu waaw bon toujours on dit fii parce que dañuy wax seetaane ay naafeq ngeen a dañ dañ leen dañoo leen jëf dañ leen recevoir xaalis loolu tout loolu lañ doon wax mais loolu ñoom ils veulent attaquer la presse on va les répondre sur ça merci beaucoup euh, Sagna jaajëfal ko mu nekk suñu confrère bu nekk foofu la ca cour suprême de Dakar en tout cas ñu woon ko pour vérifier euh, ce qui se passe exactement euh, foofu la ca cour suprême mais euh, wax na ni am na ay gens yu jógoon pour attaquer yenn ci ay taskatu xibaar am na ci ay journalistes yoo xam dañu leen traité de de corruption wala de saytaane ak yu leen ger kon mi ngi noonu mu nekk acte bu ñaaw boo xam ni ñun ñëpp dañu koy ñaawlu ah parce que tey taskatu xibaar yi nekkul dañu nekk rek di def li nga xam ni moom moo di seen liggéey kon mi ngi noonu ba euh, jéem a am confirmation ci boobu la xibaar euh, on avance libaas nañu dem fee ñu continuer ak euh, live yi ak ñi nga xam ñoom ñu les internautes kon cour suprême de Dakar gannaaw ba juge bi jëlee dogal daal di déclaré irrecevable kon parti bi la di PDS ak les candidats disponibles may leen ñu ñëw may leen ñu ñoom kat dañu meroon ba fi mu ne nii euh, meroon nañu ba fupp ba commencé woon yenn yenn cay kàddu yi xaw a ñagas jëme ko ci ñi nga xam ni ñoom ñoo di taskatu xibaar yi en tout cas loolee la suñu benn confrère bu nekk foofu la daal di firndeel ni ki léegi ni kon ñu continuer